sunu borom fa bind doomu aadama waaye yamalewu dafa may kii lu tuuti ne gaañ dinaa reset ànd Blaise Diagne seet si woon aas pour laaj ko ci grand bi gi Pape Diouf moom lu lu ciy xalaatam daal pour mu wax ni comme que moom lañ fekk nag fekk ni fi kaan ñu waxtaan ak moom aas na nga def ça va très bien xam loo xam ci grand billet parce que parce que dañuy waajal loolu grand théâtre ñu bëggoon nga sànni si tuuti sa xalaat ba xam loo ci xam parce que doomu Médina la te fii lañ la fekk ñu bëggoon wax si tuuti sa xalaat waaw grand billet moom loolu ça a été toujours un événement boo xam ne événement bu mag la ba ba jot na am Sénégal ak ci yeneen i dëkk kon tey bu ñu ko sargalee indi ko grand théâtre loolu fierté wu Sénégal la fierté wu Médina ak fierté wu ñëpp la